sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullah. sant sëriñ mi ngi sant sëriñ Tuubaa bu baax. yeesal sunu pas-pas mi ngi yeesalaat pas-pas gi nam leen ko saa ni mu leen ko doon waxee démb ak barki démb. ci mbooloo mi. ñaan bi. mi ngi ñaan ci sëriñ bi. mu dolli mu dolli ñoo dimbale bu baax. ci saayir ak ci baatin nee ni mu ko waxee woon sànq ci biir sëriñ bi moom sëriñ bi moom moo ñu tàggatal boppam ba boole ñu kenn ci ñun kenn ci ñun ñi tànnul ne dinañ mën a daje tey ci bis bi ci fii kon nee sëriñ bi moo ñu boole ñun ñëpp dajale ñu fi tey jii nee na ni ko jëwrin bi waxee sànq jëwrin sëriñ Saliou mi moo ci ne nee na bi ñuy sos dayre bi muy mbooloo mi cent 1978 la woon nee na booba bu fekk ni jamono it ay tànk lañu woon ci saar ci ci booba loola moom àndandoo ñëw ci sëñ Abdoulaat mu yebal leen na mbooloo moomu dañoo àndandoo ñëw ci sëñ Abdoulaat mu yebal leen ci sëriñ màdd Madina ñu dal foofu. nee na bañ fa dalee ba ci ëllëg sa ba ñu yeeweeku. nee na ci la leen sëriñ bi jotalee kàddu yooyu ñuy wax. nee na mbooloo bi moom 1994 la ci dugg. nekk ci lycée ba ak yéen. boobu nee na boobu ba léegi ma nga ca. man la ndigal loolee leen na dafa mel ne loolu leen sëriñ bi fàgguloon. lool moo la ci loolu moo leen ca moo ko ca indi moom. man damaa nekk membre permanent ci <laughs> kon moom dafa nekk membre permanent ci seen seen biir ci yëf yi. démb démb. tey. ak ëllëg nee na noonu rek la demee mën a wax ci fànn boobu loolu li ci des nee na loolu rek lañu mën a wax ci fànn boobu li ci des nag mooy gën a yokk pas-pas yi ni ngeen ko waxee ñu gën a yokkaat pas-pas yi ni ngeen ko waxee waaw nee na ndax sëriñ bi moom pas-pas rek moo ci jëriñi boo yéenee xaw cee dox tuuti rek li ci des moom moo ko yàggale nee kon ñu gor gor góorgóorlu bu baax nee lu mel dafa yombul jamono xatna bëgg bëgg aduna ak yu bari tënk na nit ñi ci lu bari tax yu mel da naka duñ ko faralati sax di ko def nee ba tax na yu mel duñ ko faralati sax di def te nee ziar sëñ touba mom lepp lu way def gisul lu ko gëna kawé fenn dollee ñaan nee kon mom mi ngi koy dol gën a ñaan hmm. mu yokkal ni pass pass yi bu baax defal ñu tawfiq ba lepp lu ñu yéene ñu mën ko matalé matale nee na moom ci wàllu boppam fi ñu leen indi nee jublu ci lenn lu teral taalibe Sëriñ ci rek teral taalibe Serigne Touba yi loolu dong la ci jublu. dëkk bii di ndindi. nee na dëkk bii di ndindi. mi ngi koy wax jëwriñ bi sànq ci biir néeg bi. Serigne Touba moo ne woon ay jamono Serigne Fallou ak Serigne Modou Moustapha. Serigne woon ci ay jamono Serigne Modou Moustapha ak Serigne Fallou. seexal leen tuuba seexal leen tuuba dem leen ngeen sanc. dem leen ngeen sanc. na ngeen tàmbalee ci jumaa ji. nee na na ngeen tàmbalee ci jumaa ji. kaamilu alxuraan bi. tàmbalee kaamilu alxuraan bi. ku ci nekk fa nga yem. ku ci nekk fa nga yem. nga sanc foofu. nga sanc foofu. te bu ngeen ko def da ngeen di dox. te bu ngeen koy def da ngeen di dox. nee na ci lañ tàmbalee foofa. di ba ak si sëñ Modou Moustapha mu ngi fii tindoo di di ak sëñ Modou Moustapha mi ngi fii tindoo di sëñ Fallou mi ngi fii ndindi sëñ Fallou mi ngi fii ndindi boobu fii xëy na ay dëkki pël la bu ngeen déggee tur yi sax xam ne loolu ay dëkki pël ay dëkki la bu ngeen déggee tur yi sax di ngeen xam ne ay dëkki pël la tindoo di ak ndindi yooyu moom turu kenn xam waaye neen tindoo di ak ndindi moom ay dëkki turu kenn xam ay dëkki pël la woon waaye loolu la leen sëriñ bi ci nekk sëñ Modou Moussa bi mu accès mi neen jinnati xam mooy kër ga kër di tindoo di foofu la yem nee na tamit fii nga xam ne mooy nit bi foofu la yem nee bi mu demee ba toll ci mi neen jinnati wa naaj mu toll ci tànkam yemam rek ci tindoo di fa la yem sëñ fàllu tamit fii la yem waaw yàlla dogal yi ñoom ñu nekk ci diggante boobu nee yàlla dogal ñoom ñii ñu nekk ci diggante boobu yaakaar bi ñu ci am. Mhm. nee moo tax yaakaar giñ ci am. ak pas-pas bi ñu am. ak pas-pas gi mu am. lépp lu muy nekk rek. nee na lépp lu muy nekk rek. mu bëgg ànd ak yéen. mu bëgg cee ànd ak yéen. lépp lu mu ci am ci barke. lépp lu mu ci am ci barke. mu bokk koog yéen. mu bokk koog yéen. loolu rek mooy sababu indi bi fii. loolu rek nee na mooy sababu indi ba fii. xamoon nañ ne rek nañ xëy bi ñu xëyee daje Mbacke Kajoor si nee na mënoon na ne nañ daje bu ñu xëyee rek nañ daje Mbacke Kajoor ñu siyaar. wala ñu xaar leen Thiès ba xëy wala ñu xaarante Thiès xëy ànd dem Mbacke Mbacke Kajoor. waaye nag lii a bopp. nee na moom moo ko a fàggul boppam. lu ci am ci lu baax rek. ngir lépp lu mu ci am ci lu baax. mu mën ko bokk mu mën bokk ak yéen. nee na kon moom mi ngi sant bu baax. di gërëm ñëpp. di leen ñaanal tamit. di barkeb Serigne Touba. lépp lu fi waay indi ci pas lépp lu fi waay indi ci pas-pas. borom defal la loola. suñu borom defal la loola. lépp luñ fa indi ci yeneen i safaan it. suñu borom dàq loola. suñu borom dàq loola. nee na ñi nga xam ne ñu ngi def ay examen. taxawu leen ba lépp jàppandi. sëriñ bi taxawu leen ba lépp jàppandi. ñëpp am 100 pour cent ñëpp jàll. nee na bu sañoon murit yëpp am dinañ am ñëpp jàll. dana am sax incha allah. lu mu wax dana am. nee na lépp lu mu wax lépp nee na mi ngi koy fas bu baax ci barke bis bi. nee na ñu dollee sant rek. te dollee yaakaar Serigne Touba. te dollee koo wéetal. dollee koo wéetal. fi ne xaw naa jaxasoo nee na jamono xaw naa jaxasoo lool. ku nekk mi ngi di wax. ku nekk yaa ngi riir di wax. ku ne yëkkati di ku ne yëkkati sa loxo di wax. kenn du ci lenn. nee na te kenn du ci lenn. lépp Serigne Touba la. lépp Serigne Touba la. nee na daa war a leer nañ. nee na kenn du ci dara. na ko sëriñ Abdoulaye waxoon moo ci ne. nee na na ko sëriñ Abdoulaye waxee woon moo ci ne. keroog ba mu yóotee maa keroog ba muy wet ci Maayomba ak tund yooyu. ba muy ñaan sax kenn nekkul woon ci ginnaawam naan amin. ba muy ñaan sax kenn nekkul ci gannaawam naan amin. kon tey jii bu mu ñëw nag ku nekk bëgg yëkkati naan lii laaj ci wala lee laaj kenn du na tey jii bu mu ñëw nag ñëpp ci yem lépp Serigne Touba képp la di kenn. nee na tey jii bu mu ñëw ku ne di yëkkati sa loxo naan man laaj lii la kenn du ci dara. waaw nee na ñëpp ci yem. kenn du ci dara. Serigne bi rek la. Mm. waaw nee na daa war a leer ñëpp. moo fi ne Serigne Touba dong moo fi ne moom lañu yaakaar ndimbal moom la ñu yaakaar ndimbal soxlawuñu ko ci keneen soxlawuñu ko ci keneen kon di sant bu baax a baax ñu ngi doon di sant bu baax di ñaanal fu mu toll rek nee na mi ngi di ñaanal fu mu toll Serigne Touba te darajey Serigne Touba lépp baax rek lépp baax ci biir ak ci biti nee na jërë ngeen jëf